liggéey looy jaay ay man ay sër lay jaay ay porte clé ay bracelet bracelet objet d'art daal lay def waaw. jamono ji est liggéey bi mu ngi dox. déedéet liggéey bi moom doxatul moom waaw ñun ay ambulant lañ dañuy ambulant ci taatu place bi rek xam nga rek yaa ma gën a xam waaw. Ah, lu waral mu ñàkk dox. ah li mu ñàkk dox feebar bi moo tax mu ñàkk dox client amul dara amul looloo tax mu ñàkk dox. Uh-huh. lan nga leen di wax wala nguur gu Sénégal lan nga leen di wax seen ah nguuru Sénégal daal ñu koy wax ci suñu liggéey bi ñun yàgg nañ fi di liggéey sonn nañ gisuñu ku ñu jaay gisuñu dara dañoo bëgg rek mu jàppale ñu rek te yàlla tax waaw loolu lañ bëgg. macha allah doxoon na trop trop trop trop ñun ñoo ngi nii ay jigéen lañ ñu nekk diggante safari ak obama di fa liggéey di fi daan suñ doole mais depuis mois de mars ah, liggéey bi dafa arrêté am waaw lu ko waral mooy feebar bi France tëj ñëpp tëj kenn nangootu a ñëw. fi mu nii ay résident dong ñoo fi nekk ci plage bi te résident yi moom mooy loolu duñ jënd dara ñun nag dañuy ñaan ndimbal état bi waxoon nañu am na ay ndimbal yi ñuy joxe waaye bokkaguñ ci ba tey jigéen ñi nekk diggante safari oboma ba Royal Saly ñun ñëpp sonn nañ dañoo bëgg nag état bi jàppale ñu te xam ne ay jigéen lañ ay jaboot lañ fi mu nii école yaa ngi nii di ubbi suñu waa suñu doom yi ñu ngi toog suñu jëkkër yi seen hôtel yi ñu yaakaaroon tëj nañ waaw. kon nag dañoo bëgg nguur gi jàppale ñu te yàlla tax ay jigéen nag rek ñu nekk ci naaj bi di daan seen doole te suñu liggéey bii ñuy liggéey dañ cee sonn ndax fu ñu toog ñu ne ñu du fu ñu taxaw ñu ne ñu fii dañuy dàq comme ay xaj te ñu nekk ay citoyen nekk ay sénégalais yuy daan suñu doole defuñu lu bon waxuñu lu bon ngir bëgg jàppale suñu bopp jàppale suñuy borom kër ak suñuy doom suñu avenir ëllëg yu doom moo tax ñu sonn fii ci naaj bi yow gis nga li ñuy liggéey ndax ñu ngi taxaw ci naaj bi ci naaj bi la ñuy liggéey duñu toog jamais ci ker te fu ñu taxaw ñu ne ne du fii fu ñu toog ñu ne du fii te ñu moom suñu dëkk ñu nag dañoo bëggoon nguur gi jàppale ñu te yàlla rek tax mu gestu mu gestu ginnaaw diggante aboma ba euh, safari ba royal sali jigéen ña fa nekk na leen jàppale te yàlla tax ñoo ngi lancé message ministre bi ministre du tourisme ñu lay lancé message boo xamante ne bii boo ko déggee nga jàppale jigéen ñi nekk ci taatu plage bi di liggéey depuis neuf mois liggéey ñu jàpp ñu ci dara. suñu liggéey bi avant feebar bi day sant yàlla rek waaw si la ñuy tamit jàppale suñu suñu borom kër yi tamit waaw mais bi feebar bi ñëwee ba léegi fa dëgg yàlla affaire bi doxatul gisatuñu client gisuñu dara te ñun tubaab bi la ñu xam place bi tamit la ñu xam si la ñuy suturloo ba léegi bi feebar bi commencé ba léegi nag gisuñu dara fa dëgg yàlla gis nga ni nii lañ toog nii si naaj bi nii toog pour nga am kër goo toog sax problème la tey tey tubaab yi jënd fii tey sax amuñu droit sax dem taxaw fee ndax loo wax ñu ne fee ñoo ko moom. président président bi tamit war nañoo xool fa dëgg yàlla ndax nekk sa réew dëkk fi nga dëkk màggee fa yoroo fa te amoo fa droit neexul si xol du dëgg tubaab bi fee ñu dëkk fee ñoom li ñuy def fii sañu ñu koo defoo seeni morom te tey si naaj bi la ñuy tegal fii tey wóor na yàlla ñu taxaw di jaay gis nga bu ñu taxawee fee tey gardien ñoo ñu wax dem leen fee dañu dàq comme ay xaj comme ay xaj gis nga nii fii amuñu fi benn droit taxaw fi te fii ñun ñoo ko moom. ñoom am nañu fee ñoom fee la ñu am droit nekk ne amu leen droit dugg fee mais tey si place bi amuñu si benn droit amuñu fi benn tey dañuy doxantu nii rek di jaay ay ña ay juróomi téeméer rek junni sax balaa nga koy amee yàlla xam te lii baa ngi nii tey tey président bi li mu may ministre bi li mu joxe woon fii pour financement pour lii ñun ñu ngi nii jotuñu si xamuñu sax li géej gi di riir gisuñu xaalis dégguñu xaalis ñi ko yelloowul ñoom ñi ko yelloo jotuñu leen jotuñu ko ñi nga xam ne yelloo wuñ ko ñoom ñoo ko jot loolu tamit neexul si xol booy dimbale da ngay dimbale ñi amul waaw loolu lañ mais Sénégal loolu moo fi loolu moo fi amatul daal de dafa mel ni daal dafa jeex dañ leen di jox xaalis pour dimbal mais duñ ñu ko jox duñ sax du ñu gis dañuy dégg riir mi bi ñun ñu ngi nii toog gis nga ñu nii si naaj bi la ñuy toog ba guddi jot ba 7 moo xool ba heure lañ fi xëy sa 9 heures lañ fi xëy sa ba 7 heures du soir nga dem ñibbi des fois nga yóbbu des fois doo yóbbu suñu borom kër yi tey nga liggéey suba doo liggéey parce que tamit fii la ñuy sali affaire de tourisme la su tourisme amul liggéey du am loolu laa ci am. ma bëgg ñu jàppale ñu. waaw euh, jamono ji moom liggéey bi doy na waar lool te métti na foo ko tëkk paase na fa parce que nga yor njaboot jàngoro ji daanu ci kaw ñëpp mënoo tëdd te amuloo loo dimbali ko tamit dafa tiis te dafa métti te ñun xamuñu lu dul lii ndax ci lii ci la ñuy yëngu man plage bi. mën naa ne du ma ni may jigéen ji fi jëkk a wàcc jaay mais ci ñi fi jëkk a wàcc jaay ci secteur bi ci laa bokk kon metti na daal metti na. ah man de ci sama wàllu bopp dëgg rek laay wax am na ñoo xam nag dem nañ déposer seen i kayit ak yooyu mais man jour ñu ma wooyee téléphone ni ma pour affaire déposer kayit pour affaire ndimbal ak yooyu man jëm jubluwuma ci daal parce que bu dee ndimbal boo xamante ni neen dañ lañ koy lebal man. kiiwu ma ci daa soobu ma ci man loolu laa dégg liñ ma informé mais bu doon dimbal boo xam ñuy dimbali te yàlla tax man boobu dinaa ci soobu parce que ittewoo naa ko soxla naa ko ndax fi mu toll nii maa ngi xëy duma ma wàccaale dara sama njaboot ñu ngi may xaar waaw loolu moo tax. man daal président Macky Sall li ma koy lancé na jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllum tourisme bi parce que fi ñu toll nii sonn nañ ko xool plage bi xam ne plage bi yërmande ah kii yërmande war na fee wàcc. ndax heure bi da daan fekk fii fees dell ñuy jaay kenn ku nekk di jot sa wërsëg tey bu ñu toogee ba bala ngaa wàcc cent france sax da lay metti na trop ci jaboot metti na ci xale yi nga xamante ni ñoo fi nekk parce que du ñun mag ñi rek ñoo fi nekk am na ci ñoo xam ne ay borom kër lañu yore seenu njaboot toog di xaar seenu njaboot toog di leen xaar pour bu ñu wàccee yóbbu leen dara te amuñu ko. te ñun fii rek la ñu yaakaar amuñu feneen ñi ngi ñaan nag président Macky Sall mu dimbale ñu li laay war a suuli naam feebar bi am na nit ñi ñu ngi koy dund waaye nañu fexe nu tubaab yi ñëwee ci réew mi waay <laughs> nañu fexe nu tubaab yi ñëwee ci réew mi parce que soxla nañ leen fee ñu nekk sedd na ñoom na ñu yombal kayit yi tubaab yi ñëw yàlla daf ñuy suturaal parce que boo seetee li dee ci corona bii Sénégal suñu borom suturaal ko na nañu bàyyi nasaraan si ñëw ndax ñun ci loolu la ñuy dund amuñu leneen lu dul loolu